donc ñu ngi ci incha allah suñu cinquième vidéo mooy dernière vidéo bi euh, vidéo yu gàtt te simple incha allah temps léegi ñëw nañ euh, dem nañ sàndi mooy jamaraat mooy juróom-ñaari xeer yi ginnaaw ba ñu jógee Musdalifa euh, fa lañ fanaan Musdalifa yeewu ci suba si julli suba après avant jant bi di fenk ñu dem fi nga xam moom mooy Aqaba sàndi jamaraat mooy juróom-ñaari xeer allahu akbar sàndi allahu akbar sàndi allahu akbar sàndi ba juróom-ñaari jeex bu jeexee après ñu dem rendi mooy hadi rendi xar bi wala jox ñu koy ñu koy taxawee euh, euh, organisation yi souvent donc yooyu dañ koy expliquer bu ñu rendee après dem wàññi suñu kawar waaye wala watu watu ndel ba mu safee pour góor ñi watu moom moo gën sax jigéen ñi dañuy dajale seen kawar gi yëpp daal di ciy dagg daal di ciy dagg tuuti boo defee loolu def nga taxallul bu njëkk bi maanaam donc am na mbir yu ñu la tere woon léegi mën na dagan ci yow comme euh, lu mel ni laal say wee wala bokk mu ngoog laal say kawara ak yu mel noonu euh, loolu mu dagan la macha allah donc automatiquement bu ñu neexee ñu dem direct euh, kaaba ga def tawaaful ifaada wala boog ñu dem hôtel wala sangu ji solaat suñu yére normal daal di dem def tawaaful ifaada bu euh, dañoo sol yére yi normal dañuy dem def tawaaful ifaada dugg ci jàq ji daal di nubli bu ñu fàtte bu ñuy dugg bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma xfir li dun waxtafi abaaba rahmatik daal di ñëw commencé ci xajarul aswad comme ni ñu ko defee woon ñëw allahu akbar daal di def sa tuur ñaan kii yooyu macha allah bu dee nag sa yére ah, li nga soloon moom nga kii boobu da bi nga woddoog bi nga taraxlaay da ngay ñëw ñëw ba ci kaaba gi def sa ñaan ñëw ba ci kaaba gi daal jàkkaarloog xajarul aswad daal ne allahu akbar gis nga boobu doo daw doo daw te doo génnee sa épaule droite bi non noonu rek ngay defee normal nga dox ko def comme ni ñu ko defoon ñaan yi ngay ñaan askar yooyu après diggante ruknul yamaani ak xajarul aswad nga wax ñaan bi foofu rek la ñu limité ni lii nga war a wax mooy rabbana a fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina adaban boo paree sa set tuur yi bu jeexee nga daal dem julli ñaari ràkka comme ni ñu ko expliqué woon ñaaraaka faatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun faatiha qul huwallaahu ahad boo ko mënee maqa ginnaaw maqaam ibrahim tam mais boo ko mënul foo julli ci biir xaram bi baax na boo fa jógee nga dem defi safaal marwa comme ni ñu ko defee woon mooy daw safaal marwa ni ñu ko expliqué woon ca début ba donc c' est la même chose ngay def boo fa jógee alhamdulilah léegi liñ la tere woon macha allah euh, ci nekk soxna ak yooyu yëpp après euh, loolu day daganaat ci yow ginnaaw nga sangoo macha allah nga jóge fa euh, après dellu Mina nga dem Mina donc lii ba léegi mu ngoog dellu Mina nekk fa euh, ñaari fan au minimum au maximum nga nekk fa ñetti fan donc soo delloo Mina euh, premier jour bi mooy ginnaaw ba euh, jour tabaski bi le lendemain donc la ñuy wax ni yaa ngi Mina nga nekk foofu fa la ñuy julli julli yëpp waa comme ni ñu ko waxee woon aussi wàññi mais julli ko ci waxtu bi nga nekk foofu. mooy ëllëg euh, premier jour tabaski bi cest à donc nekk nañ jour tabaski jour tabaski mooy ba nga ñëwee sànni dem rendi après daal di watu loolu moo doon jour tabaski mooy dixième jour léegi nag dem nga def defi tawaaf ifaada donc dañuy dellu mi nag nekk foofu onzième jour bi nekk foofu douzième jour bi bu ñu neexee ñu nekkaat foofu treizième jour bi mais douzième jour bu ñu fa nekkee dem tam baax na euh, moom la borom santaal wax ca sur fa man taajjala ne euh, fa man fi yawmin fala ithma alayhi wa man taaxar donc nga nekk fa deux wala boog trois bi maanaam euh, onzième jour douzième jour wala boog treizième jour chaque jour nga yeewu dem jamaraat wut euh, sept sept sept mooy vingt et un yoo xam da nga koy sànni. xeer euh, premier euh, ndax ñetti endroit la ñuy sànni mooy jamono bu tuuti bi euh, ak bu yem bi ak bu mag bi soo ñëwee ci bu tuuti bi danga naan allahu akbar sànni allahu akbar sànni boo paree set ba mu jeex nga dem à côté tàllal sa loxo ñaan ñaan le maximum après dem ci deuxième bi allahu akbar sànni allahu akbar sànni nga dem à côté ñaan le maximum après nga dem ci troisième bi allahu akbar sànni allahu akbar sànni boo paree foofu doo ñaan da continuer direct delluwaat mooy ca tànt ya nekkaat foofu tuddaat yàlla askar ba le lendemain bi donc nga defaat la même chose moom mooy douzième jour bi la même chose dem euh, vingt et un xeer sànni ji boo paree foofu bu la neexee nga daal di ñibbi bu la neexee après nga nekk loo fay nekk après def dernier tawaaf bi mooy tawaaful wadan avant ngay ñibbi wala boog nga dellu ca Mina nekkaat fa mooy treizième mooy jour bi après le lendemain nga dem sànni jamaraati boo pare nga daal di dem fi nga xamante ni moom mooy sa nga daal di dem def mooy dernier tawaaf mooy tawaaful wadaan ginnaaw ba nga defee say course ak yooyu ba mu jeex boo ah, ngeen nga dem defi tawaaful wadaan après ngeen tàggatoo dem kon nii la ci gàttal yàlla yàlla nangul ñi ak yal na yàlla nangul leen ah, borom santala ñi ajuwul yàlla yombala leen ñun ñëpp yàlla yërëm ñu dugal ñu aljanna allahuma amin ya rab bu dee am na ay njuumte ci ñun la ngeen fàttali ñu ko ñu rectifié ko en tout cas in uridu illa l islah mastataan wa ma tawfiq illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa